top c'est parti jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sant di am kontante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne donte namoon ngeen ñu waaye namm bu ngeen ñu namm nañ leen namm bu ko raw ñuy ñaan yàlla at bi nga xamante ni dugg nañ ci muy 2023 yàlla na nekk at bu gën ci at yi yàlla na nekk at boo xamante ni lépp lu ci doomu aadama bëgg rek yàlla defal la ci lu kawe sa njort accident yi nga xamante ni ñu ngi koy dégg ci réew mi mu am doon tiis boo xamante ne dal na ci Sénégal gépp ñu ngi massawu ñi nga xamante ne dañ cee loru di ñaan yàlla suñu borom mi nga xamante ne mooy jéggal yàlla na yàlla jéggal ñëpp ñu feebar tëdd ci hôpital yi yàlla fëggaat seen bopp ba ñu delluwaat ci seen i activité ki ñu de toogal nag kenn du ko présenté ci làmb borom sos soosaat door dooraat Zoss New Look Zoss bërki démb dañu ko gis mu wàcc arène national def lu Sénégal namoon ci Zoss loolu yëpp dinañ ci waxtaan ak moom ginnaaw loolu dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñëweel waxtaan bi champion ñu ngi lay nuyu baax di la siyaar. maa ngi fay jili euh, di sant yàlla ci lu seen naama salaahu salaam di sant say waajur sant sama sëñ si Moussa Nawel di sant waa équipe Dóor Dóoraat bi yëpp nag. waaw di bëggee gars yëpp sama champion yi waaw gis Cheikh Tidiane ñaa sama côté nii voilà biram gars yëpp non euh, di santaat euh, waa équipe bi dañoo baax booy vraiment ay ndaanaan lañ xam nga ñu ngi gën a liggéey jàpp si liggéey bi sant sama waa koñ wër-wër voilà parcelle ba 26 bàyyiwuma kenn Fadia Golf Sud waa Cambérène boo xoolee doo dooraat la Cambérène moom. kenn amul seen fay ñu bëggee gars yi fi nekk. Mhm. Zoss actuellement dañu gis beneen Zoss dimanche wane na ko beneen Zoss mu dugg ci stade simmeeku sànni yére bi parce que ñu bari d'habitude sénégalais yi li ñuy wax yëpp dañ ko Zoss da doon tegle newuloon ci dara mais Zoss keroog da simmeeku ñu bari dar seen loxo seen géej bi dawatina nag bu ràmb bi ki ñëpp bàyyi nga jël tàllal ko loxo bu Moussa Ndoye ak état de forme bi mu indi. waaw boo xoolee xam nga fii moom xam nga dëkk wax la quoi gars yi dañuy wax rek donc ñi nante yi dañuy wax xam nga lu leen wóor ngaa di wax leen wóorul voilà te waxula woorul wóorul la donc ay jostoog leen a yéere xam nga yooyu c'est pas important da ci am importance mooy nit doo nax sa bopp kenn mënul nax boppam boo liggéey di nga fayoo ko te lay def parce que façon entraînement bi ma doon entraînement lu sax pour jël yenn pois yi voilà parce que mun a entraîné ak ay ñoom Med Dame Seck xam nga ay ñoom euh, président LFC bi dañ parce que façon entraînement bi ñuy def souvent immobile Kébé dañ nekk entraînement boo xamante ne du pour jël pois mais pour am physique condition physique ba pare am doole naturel te doo jël pois loolu laa entraîné parce que léegi làmb sax dafa dépasse fof bu ñëk gaay yi ñëw toll toll la neex ñëw do attan sa bop léegi loolu dafa xewi voilà bo xalé bo ñaa limi woné tay nek na lo xamantene encourager na yenn boy pour ñi baña ci jël yenn poids yi lu mu nek affaire bu naaj buñu séne geste à salier n'est-ce pas donc moo tax c'est pas important ban kéro par dama am ñuma ma sax ñom mohammed gaay ñoma sori mais duñ ma bàyyi sax ba sumeeku parce que man ma maa sama yaram mo ga tang dama da musumeku quoi mais. bëgguma tax sumeeku xam nga eh, dafa nekk loo xamante ne habitude la ko doo ko tey quoi boo koy def waaye après maa ngi pare maanaam est-ce que maanaam si teyu ko wallaay tey ma ko. Eh, mais li jaaxal nit ñi mooy Moussa Ndoye dafa dugg si stade keroog ñëpp gis état de forme bi mu yor mu dugg daw kenn dawul nga daw simeeku dëkk Moussa Ndoye ba max ko. mu ñëw song mu ñëw song ma kay. mu song <laughs> champion la quoi you know dem na liggéey Maroc te bi mu demee liggéey Maroc boo xoolee xam ne liggéey na. liggéey na ah, liggéey na kay. léegi mu liggéey nga ñeme ko. ah noonu la noonu la damay xool ndax liggéey na ci fayoo ko wala mais liggéey na moom franchement wax dëgg yàlla moom. mi ngay état. ñu bari nee nañ da ngay xuuxal gars yi rek mais sa objectif du dëkk Moussa Ndoye parce que musaandooy seen combat yi ñaar dox nañ ko ay yooni yoon mais kenn mënul wax combat bi fu mu taxawee. Ah, na promoteur yi wax promoteur boo ci wax rek daanaa dégg ay réglage moo des mais nañ la wax fu mu taxawee man combat du yéexee ci man. combat du yéexee ci man. donc combat bi nii dafa nekk combat boo xamante ne dafa ñor parce que keroog dama tuus mu daw ñëw ndax bi mooy deux fois xam naa ne jàpp na ne Zoss moom da ngay jàpp rek fëlax sànni te du demee noonu waaw combat la bu may jël au sérieux parce que boo xoolee na mën naa plateau trop jëli. Hmm. kañ nga gëj a toog plateau. waaye yow plateau gëj naa fa toog cuuu non bàyyi noonu du ma ko wax fii ah. loolu du ma ko wax fii dinaa toog plateau. <laughs> mais gëj nga toog plateau Moussa dafa duggoon dóor dooraat défaite bi mujj yaakaar naa suma ma juumul à part ci Garga la ko amee yéen ngeen soxlawaat ko bëgg a jël Moussa Ndoye lan la da ngeen am saraxam da ngeen a xam lu koy daan parce que da ngeen koo daan neenu ko lan moo tax ngeen ñeme Moussa Ndoye Zoss. non Moussa Ndoye euh, xam saraxam mi ngi si. xam sa raxam waaw mi ngi si mais leneen tam dafa nekk ci Moussa Ndoye mais dafa nekk mbër boo xamante ne Moussa Ndoye mbër ëpp ko tur leer laa lay wax mbër ëpp ko tur quoi moom mooy bañ waaye koo ko bañ na ragal aussi pour mu waxante dëgg waaw moom mooy bañ te wax na dëgg Moussa Ndoye dafa fu mu toll si làmb Moussa Ndoye combat yi baax la bëre yaa ngi dégg daan ay mbër yu mag kenn werante wu ko mais moom xam na ne moom tamit ku daan sos mën nga daan nga ñi ñi sos daan ñëpp waaw kenn dootu ko bañ ci làmb mais gëm naa ne combat bi dama si am ndam. day xeex. waaw ah, loolu moom mooy suñu liggéey parce que ay xeex moom du dara xeex moom gars yi ñoo koy jàpp nii rek mais xeex man li may ñeme ku moo tax may jël kaw mais parce que sama coach suisse bi loolu la bàyyi sa kanam mi ngay joxe nii parce que dama bëgg ay joxe kanam moo waral yi yëpp yëpp gis nga ay sikaar yi yëpp yëpp yëpp ay dagg parce que sama ka du ma daw donc liñ may jàngal temps yi yëpp mooy xam nga di mën a esquiver coup yi quoi xam nga mais man damay dama bëgg di jël coup nga ma koy xam rek koy joxante voilà c'est-à-dire loolu dañ ko gis sa combat yaa Khadim Ndiaye numéro 2 mais da nga jàpp ni làmb actuellement ci foofu la toll ba léegi Zoss mi bëgg di dóorante ko dem ardo ñëw jaay kii lool loolu dafa waaw loolu laa lay wax xam nga man par exemple man Pikine laa yoroo si làmb bi hmm. ñoom lool lañ doon jàngal xam nga da ñëw ci Ndiaga Diop au lieu mu la maanaam la dangay dóor bu ne waat ni nga ne ni waat na pan pan ne waat ni wu pan pan pan xam nga yooyu. day nek sa bop ba legui bo ñëwee tax ay ciak def affaireu xam nga bëgg xex mais da nga xam ne après lamb du ñëpp ngay wara mëna du ñëpp la humilier quoi ci ay coup et tout xam nga ku mu dal rek daf la war dal mais après il faut tamit man damay soxla ay conseil côté bobu ay ñit ñema fala dama ko wax ay boy mom du ko def bo gisé buntu daan ko parce duñ laaj ku door ku daan la wër yaay ngi bo door ni ko mu son tamit bu la daanee yeesu wa lamb ci ko daan tay ngay dégg xam nga doo dégg ku dóor donc man damay conseil ñi ñi mais finalement man tamit du ma def loolu. xam nga damay topp xeex bi topp xeex gis nga même sama combat booy euh, Boy Sey loolu lañ ma wax paa yi daf ma ne bul xeex yaa ngi dégg jàpp ko nga daan ko mais dama koy fàtte. il faut ma xeex xeex ba jël benn coup boo xamante ne <laughs> sama xel di soog a dem ci bëre bi. nga doog a jàpp may soog a jàpp. ñu bari xam nañ ni Zoss dafa fort ci wàllu bëre. Zoss boo jëlee tànka mu bëre bu la jëlee ñu lëng la ñu lëng la man xaw ma lan la daal mais man su ma bëree bëreeguma quoi. non bëreeguma parce que li may bëree mbëri mag yi ma jot a contactal wax nañ ko benn jour ay Eumeu ay gars yi xamante nañ ci contact xama dañu jàng si ñoom bëre xam nga mu nekk koo xamante ne bëre rek la ko yàlla mën loo mm. kontaan naa ak bëre la ko yaa yaa ko yaa ko mën loo yaa ngi dégg kenn dàqu leen bëre ñooñu yaa ngi dégg mais ba léegi li ma war moo tax li ma war a prouver ci contact defuma ko est ce yaa ngi dégg daf may métti yenn saa yi parce que làmb souvent ci du fa feeñ bëre du feeñ parce que souvent mystique bi day bëri day bëri bëri de te sorte que balaa balaa nga comprendre yenn saa li nga physique li nga entraîné du feeñ ci làmb ji xoolal rek. waaye day waaw parce que combat bi lan moo tax ñu bari nee nañ Zoss moom sëriñ buy fay prix bi gën a cher ba seer deux mille cinq cent lay fay Zoss farataalu sëriñ mystique moom farataaloo ko ci làmb gaa yee ko wax de. non sa bopp. il yàlla gëm sa bopp. que man dama seetlu combat yi ma doon dem ci àll bi di rey sam bopp di sangu def ay affaire combat daanu. damay daanu waaw. combat ma ñëw takku ma gala dama xool si kii takkuma dara benn ndomba laay di fii takk ko boobu damay daan ama après nag da nga doo comprendre quoi affaire yi tamit xam nga da ngay dem jël ay musique daanu. yow mystique jëloo mystique si. jàpp ba nga xam ne tey si si si. combat yi ma daan yëpp combat yi loo xamante ne man du ma comprendre balaa maa comprendre damay laajte lu xew franchement doo xam sax lu xew barki yàlla da ngay doo comprendre dara dara dara man sama combat ak Pape Sène jour boobu noonu. kii bi euh, veille combat bi sama bët yi dafa doon dafa dafa doon metti mënu ma gis làmp ci guddi gi laa de mënu ma gis làmp ma xëy mënu ma xool ci naaj bi suñu waa kër doo bëri ma damay bëri ji mais bi jeexee boobu ci yi ndaw yi la woon bi jeexee affaire dafa disparaître carrément moom ma dama waaru dafa jeex rek mu deñ xam naa affaire yu ñu sëfoon wala dara mu dind ko gëm naa loolu day am je dis pas le contraire mais la moo tax man su ma ci musique ah du ma si am dara su ma si sonn lay am dara peut-être am na lu di woon foofu wala quelque chose comme ça la ah mais ci làmb la bokk Ada Fass daa bëreeg Zarko dimanche bi passé ñu bari ne Zos ak Moussa Ndoye du combat mais Zos ak Ada Fass mooy làmb ji askan bi yëpp di xaar pare nga pour bëre Ada fas. oh Zos Ada Fass loolu nu mu nekkee combat non c'est que du question euh, tey sama boy yi ñoom seeti jaan ñaa ñoom waaye Juro Seras ñoom booy ñang baalo booy dañ la war a xam nga kii comprendre nga. ñoom yeggaguñu ci Ada Fass. waaw mais bientôt ah c'est que fi ma waxee mooy. Ada Fass il faut mu liggéeyaat il faut mu liggéeyaat tuuti parce que tamit xam nga bëreeg jos du noonu. comprendre nga bëreeg jos moom man damay jël combat ñaar ma mbër bi nga bëre mooy kan parce que gars yi kii wuñu à ce point quoi. Ada Fass bi ba mu fees. diggante ak waaw mais waru woon daan si combat boobu. peut-être bu daanu woon ci combat boobu à la rigueur mais nii nii il faut mu liggéeyaat tuuti franchement il faut mu liggéeyaat. Hmm. il faut mu liggéeyaat pour pour a bëreeg sama genre parce que tamit xam nga man yàgg naa amee chance ji li damay amee chance rek. Hmm. xam nga boo gisee même boo ñaay ma koy daan dama hmm. noonu guy gi noonu. guy ma koy njëkk a daan dama ko amee chance. donc da may chance may chance yow tamit da nga chance. mais yow may chance bi neex na ci yow parce que yow ñi nga may chance yëpp da nga te donte Tapha Tine may na la sens. waaw donte tournoi moo leen boole woon. waaw ah, mais may nga sens booy ñaar. mais échec échec naa ci benn mooy chance bu Ama Balde aussi xam nga yooyu tamit dafa nekk loo xamante ne moom laa xam mais chance dafa métti te dañu war a bàyyi benn affaire tey bu Ada Fass daanoon Zarko ñu ne Zarko mag la nañu bàyyi ñi ni ay mag lañ fi amul loolu fii liggéey moo fi ne boo liggéey loo liggéeyal doo ko fayam.